la presse ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen gërëm fii ci seen teewaay di am mbégte teew fii jàkkaarloo ak yéen di am contentement trop ci invitation bi ngeen xam ne yéen ñëpp teewee ngeen ko rawatina nag les sites internet ak euh, diaspora bi nga xam ne ñu ngi suivre en direct di am kontaan trop ci mobilisation bi nga xam ne tey champion les crèmes de la lutte tey teew nañ fii euh, teew teewaay bi ñu teew fii nag dafa am sabab sabab bi nag ñaar moo ko tënk mooy le huit bi passé dañu demoon fële ca palais de la république euh, le président Macky Sall woowoon ñu fa pour ñu waxtaan waxtaanu échange ak moom mu xam ni mu xamal ni ñu làmb am na ay jafe-jafe ñun rek nekk ñu fa composante lamb yëpp a fa nekkoon les communicateurs traditionnels les anciens couloirs les sages les promoteurs maanaam branche yi nga xam ne dañu ngànk làmb yëpp ñu ci woon kon boog le monde de la lutte le président Macky Sall invité woon pour am échange ak ñun waxtaan boobu nag waxtaan bu yaatul li waral jotaay bi fii nag mooy jotaatu jotaayu waxtaan ak rencontre maanaam tey expliquer euh, lañu ñu fa jëlee ak avancement yi nga xam ne tey ak lu bari loo xam ne tey waxtaanee nañ ko fa muy suñu ay doléance yoo xam ne en toute sincérité euh, bi ci njëkk mooy jafe-jafe bi nga xam ne mbër ñu ngi koy dund làmb ko dund bi ci njëkk moy ñep xam nañ ni reconversion des lutteurs dafa am dafa am manquement te président lancé xëy ndaw ñi te jotaay ba ñu toog mu xamal nañu jox nañu benn quota boo xam ne tey ci xëy ndaw ñi ñu waxtaan ak moom wax ko ci ñun am na ay jafe-jafe logement sociaux li nga xam ne secteur yu bare bare bare bari dañuy am bénéfice ci maanaam logement bokkoon na suñu ay mébét ñu wax ko le président suñu jafe-jafe bokk na ci couverture maladie universelle maanaam tey problème mu santé ñu tey ahlu làmb dañu am jafe-jafe boobu trop moom it moom it loolu bokk na ci ay mébét yi nga xam ne tey ñu ko ko wax mébét yooyu nag biñ ko ko bi ñu ko ko waxee ba ñu jóge fa en toute sincérité gis nañ ci ay jéego yoo xam ne tey avancé na parce que tey bërki démb rek fii la ñu toog war a dem doon def assemblée générale avec son ministre Samba Ndiobène Ka pour tey ñu teg pour tey ñu teg bureau boo xam ne tey moo ŋànk mutuelle de santé bi nga xam ne tey moom lañu moom la waa làmb yépp bokk te nag association walla kuréel yàgg na dem yàgg na dem fële ca palais de la république ñu dig ko wala ñu wax ko mu nekk ay diir avant que ñu koy exécuter waaye benn ci yooyu nga xam ne président dig nañu ko en toute sincérité mi ngi am ay avancement te yaakaar nañ ni bu ñu jógee ci mutuelle de santé danañu le ministre euh, le ministre de l'habitat dina toogaat fii ay fan pour teg bureau pour tey teg coopérative d'habitat ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nag dama koy partagé ak suma frère yi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, wane nañ keroog seen présence wane nañ keroog ñoom ban profil dañu am ci dëkk wane nañ keroog ñu ñoom làmb am nañ ci rôle bu mag a mag a mag a mag bu ñu joué boo xam ne tey euh, tey y a plus de dix mille et quelques jeunes yoo xam ne tey ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla mel ni jëm yi doom pour ne pas citer di di guddal bari na ay suñu ay rak yoo xam ne tey euh, seen yéene seen ay engagement mel ni champion yi wala ñu raw ñi parce que tamit nous sommes partis de rien du tout parce que nag bi ñuy dugg ci làmb li tax ñu dugg ci làmb c'est pour aider nos familles parce que dañu juddu fekk suñu kër kër ku fi nekk tey fekk sa kër di saxaaram ku ne làmb nit mënu ci defar ko ba defar ay nit xamuloo luy làmb parce que ñi fi toog ñii yëpp tey daan nañ dem ay jamono dem entraînement bu ñu fa jógee du ñu am lu ñu ndékkee du ñu am lu ñu lekk du ñu am lu ñu naan kon àddina dara xëyul xëy sotti waaye tey nit ñii tey ku ci nekk làmb fay na la làmb sagal na la làmb sargal na la est-ce que nag ñun làmb daf ñu war a sargal sagal ñu def ñu lu ñu doon tey fu ñu romb ñu tàcc ñu ñun tay lamb nar a nous am ay jafe-jafe ñun ñi duñu takku pour suñu nous yi nga xam ne c'est des c'est des milliers de gosses yoo partout au Sénégal fépp ñooñu tey koo ci tàllal micro lu muy wax mooy dama bëgg dimbali sama ndey dama bëgg dimbali suma baay dama bëgg dimbali képp ku jege ci man Nous ñooñu tey ñun ñu lekk naan ci soow mi lekk ji ba suur est-ce que ñun war nañ toog lamb am ay jafe-jafe ñu croiser le duñ def waral suñu toogaay bi moo waral tey ñu takk suñu ndig pour suñu sommes yooyu nga xam ne ci ñoo xam ne làmm moo tax ñu voyager illégalement am na xam ci leen dem seen parce que gisuñu seen bopp seen ci làmb ji am na ñoo xam dañu voyager légalement dañu am dem ñu jox leen visa ñu tukki te loolu tey boo ko recensé c'est des ay 300 personnes ay 300 leaders. et quelques loolu nag tey moo waral. bi ñu président de la république woowee fële palais ñu am sago ak dal jàkkaarloo ak moom wax ko jafe-jafe yi nga xam ne làmb mi ngi koy dund te nag président bu defaree làmb ñun ñii la ko defal ñun ñu toog parce que fii ku fi nekk yaa ngi sant yàlla waaye ñun dañuy xalaat suñu ay rakk dañuy xalaat suñu ay nijaay président yamul ci làmb mbër de parce que moo distribué moo distribué boppam xëy ndaw ñi parce que xam na ni am na ay anciens gloires yu fa nekk

di la di la defaral làmb yàlla day jaarale ay mbiram ci doom aadama quoi qu'on dise mooy ñu ngi koy sant di ko gërëm ci yooyu nga xam ne jéego yooyu nga xam ne mu ngi koy dox di ëxlu làmb te làng nag sëngéem te ñuy ñaan yàlla projet yi nga xam ne mi ngi ci kanam yàlla na ko gaaw mu nekk lu ne lu suite loo xam ne tey lu gaaw lay doon euh, fa lay campé débat bi li ci des dañ ko gën a yaatal pour ba bañ a guddal suma frères yi yëpp ku ci nekk ambassadeur nga fa nga nekk ku ci nekk làmb tey mënuñu tudd làmb te tudduñu la ku ci nekk yaa liggéey lu tax tey foo romb Sénégal yi safoo la tiitooroo la kontaanee la kon ku ci nekk am nga kàddu am nga sa mot à kon maa ngi jël kàddu yi jox ko euh, mbërum Guédiawaye bi ñu koy Balla Gaye numéro 2 boo ko tuddee ci làmb xam ne marqué na empreinte am ci làmb def na lu tax tey bu rombee ñu ne ko Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye maa ngi koy jox kàddu pour euh, mu doxal jërëjëf Balla. si benn bi naan noonu di ko jëmm